noom ak taskatu xibaar yi Bougane Gueye Dany daal dina ñëwaat ci détournement bu 98 milliards bi nga xam ni junjoon na ko fan yu weesu njiital gëm sa bopp di dëggal ay kàddoom jëmale ko ci ministre des transports terrestres di Mansour Faye muy xamle ni sax dana doxi jéego ngir ñu audité boobe ministère. ma dolli leen ci beneen maanaam 13 jël yi neexale ko ay nit day porter rek na porter décidé naa bind waa cour des comptes pour xaalisu réew moomu nga xam ne jaaralewuñu ko ci trésor ba noppi di ko utiliser ñu wax ni fan la ñu teg doxalin bu ñaaw boobu ca geneen fànn moom Bougane Gueye Dany daal dinañ ñaawlu la nga xam ni jàpp na ni ab sabotage la bu cérémonie de déclaration bu candidature ma gaaw gi weesu mu di loo xam ni bu ñu sukkandikoo ci moom day gàllankoor lii di démocratie. l'interdiction des manifestations yi nga xam ni ñu ngi koy tere bëri na lool ci dëkk bi bi ci mujj mooy jigéenu gëm sa bopp yi nga xam ni bëggoon nañ maa investir en tant que candidat ci élection yu 2024 ñu fexe ba sa. yéex ñoo jox autorisation waaye bu yaboo nañu noppalu. la manifestation ce ca noonee muy wokk jëg politique nga xam ne ñoo nekk foofee ca pencum ndawum réew ma ngir ñu xaatim ab loi boo xam ni dafay soppi disposition yi nga xam ni moo wër droit gi nga xam ni askan wi am nañ ko ngir manifester wala dajaloo.